daam ñu ngi lay nuyu bu baax nag di am mbégte euh, di la dalal li jiitu ci laaj bi rek mooy euh, démb danoo gis euh, waa APR yi mobilisé à Pikine dernièrement à Kër Massar Sonko mobilisé foo woon ñu ngi waajal beneen Mbàkke mais waaj goog ñuy waaj yëpp dafa mel ne ay mbër mbër yoo xam ne ñu ngi jaaju takk seen ngemb mais xamaguñu sax bisu combat bi parce que élection présidentielle waxtu wi waroon na fekk ñu jàpp ko mais aussi waroon nañ xam yenn candidat ñoo ci bokk mais amul kenn ku mën a waat ni damay bokk ci yooyu la élection pour yow lan moo yóbbu situation bi. waaw li ñu yóbbu ci situation boobu daal. weesuwul nii dafa am ko fi nekk koo xam mi ngi tudd président de la république Macky Sall ñu faloon ko 2012 mu ne woon sax juróom-ñaari at yi loolu la loolu la xëccoo réew mi 2012 di xëccoo ne dinaa wàññi bu ma gañee jële ko juróom-ñaari at yi indi ko juróom. Mhm. ñu bëri votel ko ndax loolu yaakaar dina sàmm ak kàddoom mu mu mu wuti pexe ba wàññiwu ko def juróom-ñaari at mhm. bi mu paree ñu demaat beneen élection 2019 mu euh, defati pexe ba éliminer ñu ko neex mhm. def ay parrainage am def ay tappaleem ba éliminer ñu ko neex am tuuti candidat juróomi candidat yoo xam ne dina ko permettre mu mun a jàll au premier tour parce que ku ne xam na ni ci experts yi nga xam ñoo xam ci mbirum élection mhm. élection lu muy gën a bëri candidat di gën a bon ci candidat bi nga xam moo nekk au pouvoir parce que day tas voix yi te bu voix yi tasee rek ñu dem deuxième tour. moom mu xam loolu parce que looloo ko taxoon a falo en 2012 ay Juma Jeng Jaxate ku ne nekk candidat ñu am ay douze candidats. voix yi tas Ablaye Wade dem deuxième tour. mu loolu du daw ñëpp gis ne ay tappale moo lal mu def mu ñëw nag bi ñaari mandat yi jeexee constitution bi wax ni kenn mënta am lu ëpp ñaari ay yu tegaloo moom mu ne par force dina am ñaari ay yu tegaloo parce que soo xoolee seen meetingu démb bi ka doon wax nga xam ne moom mooy premier ministre am Euh, bi nga xam si moom mooy. Euh, euh, mooy mooy mooy Amadou Ba. Amadou Ba bi muy wax wax na li nga xam moo ëpp solo mais waxul wax ji parce que Amadou Ba li muy wax boo xoolee nit sax xam ne li may wax ak li mu gëm bokkul parce que Amadou Ba dañu pare na pour accompagner ko 2024 accompagner waat ko ba 2029 donc ça veut dire que da doon def comme li waa APR yi def maanaam di jéem a déclarer candidature te ñi mu ko wax mu leer. Mhm. Amadou moom siège bi siège premier ko koo jox ko toogal ci <laughs> maanaam. néewuñ ko toogal ci digg siège premier ministre bi dañ ne ko yow yaay premier ministre tegal si ko siège premier ministre ba nga xam ko yow toogal ci chat li mhm. léegi cat loolu mu toog nag daa bëgg ñu bàyyi ko mu toog ci digg bi bu toogee ci digg bi doog a wax li mu gëm moo tax waxagul li mu gëm moom Amadou Ba li mu gëm moom Amadou Ba moo la gën a xam ne président Macky Sall mënta doon candidat 2024 mais bu ko teelee fésal dañ koy dàq parce que man foy for naa ci wéewu bay que ngi ko doon waaj a donc comme léegi ñu ngi koy waaj a dàq non Amadou Ba nekkul premier ministre Amadou Ba dañ koo jox titre bi noonu rek mais maanaam dañ maanaam amul lenn duñ ko jox doole pour mu mën a occuper siège bi comme ni ko premier ministre war a occuper. amul du am dara maanaam dañ koy xañ lépp maanaam dañ koo tudd rek dañ ko ciy tudd waaye nekk ko carrément parce que ñoom joxuñu ko daray gëdday premier ministre. léegi nag démb li ñu def effectivement comme ni nga ko waxee danoo gis ni euh, Ousmane Sonko dafa mobiliser. ca Kër Massar. mais lim boo xam si daanaka kenn mënta xam lim bi fu mu toll. c'est-à-dire quartier bi non non seulement terrain boobu terrain Yékini nga feesal ko yombul. mais mbedd yi jëm ci terrain bi dafa feesoon ba nit ñi yëg ci kër yi ba kër yi sax nit ñaa ngi doon tiit ne am na ci kër yoo xam naroon na daanu. parce que nit ñi xajatuñ fa woon. loolu leer la lu kenn dul werante la nekkoon ci kaw kër yi donc moo ëpp ñoom seen meeting bii ñu def démb. la nekkoon ci kaw kër yi te te te nit ñi gis ne mënuñoo wàcc ñoo ëpp lee ñu mobiliser ñoom léegi nag non non lu leer laa lay wax te li ci gën a mooy bi Amadou Ba di wax genn wàllu nit ña ñibbi nañ non danoo jote woon seen biir moo tax waaw loolu laa lay expliqué loolu li ma ci am solo mooy doo la ko andi damaa bëgg a wax ni ba Amadou Bay jël parole genn wàllu nit ña ñibbi nañ te ñoo ñooñee fa ñu dajaloo matul sax boo doon euh, boo doon diviser dix fois li nga xam moo nekkoon Kër ma saar matu ko ba noppi la fa nekkoon ku su néew bi Amadou Ba di commencé wax ñoom ñëpp ñibbi nañ li ci leer aussi mooy ay nit ñoo taxaw kenn waxalu leen ñu jox leen micro ñu ne ñun dañ fay pour ñu ñëw maanaam dañoo fay 2000 ñii ni dañoo fay 3000 ñii ni dañoo fay 5000 pour ñu ñëw mais ñun lii andiwuñu woon ñun Sonko lan àndal waaye nag comme dëkk bi daa dëgër ñooñu ñu kaay leen ñu jox leen 2000 ngeen dugg ci oto yi dugg nañ ñëw waaye ñun bu voté jotee duñu leen votel loolu xamal loo ci jàngate. Hmm. boo demee ba ne yow da ngay def réplique danga koy def mais ci loo xam ne dana jur njariñ parce que réplique mooy waa ji mi ngi dajale ci nit ñoo xam ne déglu li ma lay wax. li leen wuutale moo bëri ki nga xam ne moom mooy woote moom yorul nguur du jox kenn dërëm ku fay ñëw yow yaay fay oto bi lay andi yow mi fay ñëw maanaam ñoom ñooy dajaloo ci quartier ak dëkk yu mën a jóge ñoom ñooy dajaloo cotiser fay oto bi lay andi boo ñëwee fay parce que boo ñëwee yaa ko jox addiya non seulement yaay fa fay oto bi lay andi mais boo ñëwee danga koy fay moom mi la woo ndax danga nga koy jox addiya kee nag moom mooy fay ki lay euh, oto bi lay indi moom Macky mooy fay oto bi lay indi ba moo lay fay. kon nag boo comparé da ngay gis ni bokkuñu maanaam kii mooy wut oto bi koy andi fayal boppam ba noppi bu demee fayu ki ko fa woo kee nag moom ñi ñim woo moo leen di fay ba noppi mooy fay oto ba leen di indi kon boo xoolee da nga xam ne ñaari mbooloo yi bokkuñu kon ñii danoo taxaw gëm ab projet ba jël seen alal di ci def ba jël lu ma 333 million ni ko jébbal nañ la ko te buñ ko tëjloon heure bii mu dem milliard ñoom ñoo ko tëj rek yàkkamti mais buñ ko yeexoon a tëj mu dem milliard waa kooku nag mënta yem ak ki nga xam ne moom bu bëggee mobiliser day génne xaalis joxe mën a évoluer léegi kooku ñuy dajaleel xaalis moom tamit ñu ngi koy gemb mais kenn xamul ndax dina bokk ci bëri bi mooy Ousmane Sonko yow ci say biir waxtaan da ngay dégg ngay wax tentative d'élimination jëmee ci Sonko parce que bu tëbee dal ci xal rek beneen dese na ko ginnaaw Mame Mbaye Niang kii di Adji Sarr amul lenn lu ñu ci ni day bokk tentative d'élimination boobu yow ngay def ci bokk nit ñi à chaque fois di ci wax euh, pour yow lan lañ ci jublu ci Ousmane sonk est-ce que dina yomb. liñ ci jublu leer na nañ hmm. Macky Sall deflu na ay sondage sondage yi nee na ko bu Ousmane Sonko bokkee même yow nga bokk day gagné premier tour. bu élection yi jaaree yoon waxuma nag ay élection tappale parce que yoo xam moom voté guñ nga ne maa gañe moom loolu du élection hmm. mais vala élection yu jaar yoon bu amee. Mhm. maanaam ñi war a voté voté ñi warut a voté du ñu voté maanaam ñu am fichier bu leer ak organisation bu leer ci élection yi. Mhm. dès le premier tour loolu mooy sondage Ousmane Sonko day gagné. Mhm. léegi nag comme am na information boobu te moom xaroo ko gënal Ousmane Sonko remplacé ko mooy mi ngi def defi pexe pour Ousmane Sonko du nekk candidat parce que moom mënta doon candidat. mais même bu doonoon candidat Ousmane Sonko da koy gagné bu élection yi jaaree yoon kon xam nga Macky Sall doful li mu tiit mooy. comme Ousmane Sonko danaan ñafal ñafal léegi buggul ko ko ñaf moo ki nitam léegi nag loolooy ñafal ñafal bi léegi nag moo tax moom fi mu toll nii ñafal ñafal boobu am na sax ñu naan Ousmane Sonko daa war a bàyyi wax ñafal ñafal ndax waa ji xaw a euh, dal tuuti parce que yii yëpp mu def acharnement bi mu def ci Ousmane Sonko di ko jaay doole ñëpp gis ko ah képp kuy sénégalais tey wax dëgg yàlla ak boor boo mën a féete di nangu ne li ñuy teg Ousmane Sonko mosu ñu ko fi teg benn leader même Mamadou Dia en 1962 bi ko Senghor di jaay doole mais tegu ko lii. c'est-à-dire que li ñuy def Ousmane Sonko amul benn leader bu ñu ko fi mos a def c'est vrai que Dia jël nañ ko tëj ko 12 ans ci jaay doole mu génn presque màggat alors que bi mu génnee dañuy dafa yaakaaroon ne Sénégal dana développer au moins ci 12 ans yi ñu ko téye mais. Euh, Sonko le même discours bu jàlla yore c'est-à-dire le discours souverainiste le discours souverainiste nag mooy sama bopp ma la gënal dug bañ naa la loolu moo tax France ragal ko parce que le premier adversaire la France même si par ailleurs am mooy que ne bi ko Macron woowee nee na ko en tout cas ñun ñoo ngi am ay crainte par rapport à Sénégal loolu day ñëw ci question bi nga ma laaj est-ce que Ousmane Sonko day nekk candidat ñoom ñoo la gën a xam ne bu Ousmane Sonko nekkul candidat élection du am parce que xalaatuñ un seul instant au Sénégal ñu defi tappale ak boor bu ñu ko mën a jaarale ñu jaarale ko ci dossier Adji Sarr bi nga xam ne man bokk naa ci ñi waxoon dès le début que bi ay tappalee ko lal complot la lu ñuy gën a dem la ma waxoon di gën a leer beneen bi mooy tey jii ñuy tappale ba koo jaar ci dossier Mame Mbaye Niang mooy diffamation dossier diffamation je défie tous les acteurs de la justice amul kenn kuñ fi mës a jiiñ diffamation mooy duural duural nit waxal ko loo xam ni amul amul kenn ku kuñ ko fi mës a jiiñ koo xam procureur dugg na ci buñ ko bu ma la duuralee wala nga duural ma maag yow ñoo ko séq dossier civil la ah, intéressé wul procureur parce que procureur askan wi lu intéressé askan wi lay toppaatee mm-hmm. mais lépp lu intéressé wul askan wi yoonam nekku ci kon dossier boobu suñ demee ba Mame Mbaye Niang nga xam ñëpp xam nañ ci tappale la nekk parce que dossier boobu ñu dem ba bind ci ab livre Birahim Seck def ci bind livre wax ne Mame Mbaye Niang sàcc na sunu xaalis vingt neuf milliards six cent millions da koo luubal ci lu leer nañ mu leer mu wone marché yi nga xam ne lépp dara jaaru ci yoon respecté wuñ benn procédure te benn rapport euh, firndeel ko muy rapport IGF Mame Mbaye Niang moom boppam malgré que fan yi xale yaa ngi koy vaar mu ni rapport bi amul ba noppi delluwaat ne rapport bi am na ba mu njëkkee wax ne rapport bi am na waaye tey mu ne rapport bi amul na ko Ousmane Sonko wane fekk loolu ndëgg sërëx bi ñu ko bëgg a tegal mooy li ci procureur bi dolli procureur bi mu yëgee ne bi ñu wax loo Mame Mbaye Niang ne ko porté ko plainte da koo porté plainte xam ne buñ buñ bu ko porté plainte Sonko fokk mu génne rapport IGF bi ñu xam ne su ko génnee te ko caab ñu tuumaal ko li defoon Pape Alé Niang léegi ñu koy défier gisoo dañ koy défier ñoom ñoom ko ko génne mais ñoom xam nañ ne rapport bi am na dañoo bëgg mu génne ko pour ñu taqal ko ni ko recel document administratif nga def donc loolu moo tax ñoom ñoo la gën a xam ne ñuy def ay tappale procureur moo tax mu dolli ci faux ci chef d'accusation yi maanaam li ñuy toppee Ousmane Sonko en plus de li nga xam moom la Mame Mame Mbaye ñaa wax ci plainte am ni daf koo duural ak également dafa am ay saaga yu mu def ci pénc mi léegi beneen bi ci procureur dolli nga xam ne moom fa la bëgg a jafandu tey moom yoonam nekku ci ñaari sénégalais yu jàppante musta am benn procureur bu ciy dugg parce que ñun nag ay leader d'opinion lañ un leader d'opinion tout le temps ñu ngi lay porter plainte ci diffamation mm-hmm. man ñaata yoon lañ ma indil sama bureau Euh, sommation interpellative ñenn ñi falan yam dañoo ragal parce que xam nañ ni bu demee man ñeme na maa dem jàkkaarloog ñoom ñenn ñi citation directe lañ ma andil mais du jeex du jeex euh, seen mbokk journaliste rek bërki démb dóor nañ ma sommation interpellative ñoom waa kabak seen association yu bëri yooyu de la presse bi ma fi defee sama émission wane ni presse bi daa bëri tappalekat donc mais je désolé léegi man man ba ma ko defee ñoom dañoo ñëw yónnee ma sommation interpellative ma dëggal la ma waxoon ne li ma wax dëgg la li ma gëm mooy ab daa war am nu muy taxawee xam nañ mais loolu yoonu procureur nekku ci maanaam ñaari sénégalais yu yu tuumaalante kii naan damaa sosal kenn damaa duural loolu yoonu procureur nekku ci mais xamul tax mu yokk ci loolu. Mm. c'est parce que dañoo bëgg a jafandu ci parce que Ousmane Sonko xam nañ ni dossier Adji Sarr yàqu na. Mm. dossier Adji Sarr mënatuñ fa jaar parce que ñëpp xam nañ ni ab booy ji nit siif fokk nga am benn këyit au moins bu koy firndeel mooy. yegg am comme ni ma ko sa un ami français di waxee mënu ma mais Sénégal rek moo neex ma ne ko lan mënu ma mais Sénégal nan ngeen di waxee ci ab dossier bu ñuy yóbbu devant le tribunal alors que le certificat médical qui est dans le dossier dit que y' a eu de conjonction sexuelle maanaam jaxasoo amul mënu wax léegi juge bi su koy àtte fan lay sukkandiku mbóoj man ko ah, mais Sénégal lu ne di amee sous Macky Sall li mus am ci benn réew réew boo xam dañuy jël ab dossier viol yóbbu ko au tribunal pour ñu àtte ko soxna Béti alors que pièce ba ca ëpp mooy médecin ba ñu yóbbu xale bi nee na ndaw si awra ku góor yéegul ci awraam mais wax ji féete na boor nañu waxante dëgg léegi nag donc man ñoom xam nañ ne dossier boobu mun ñu faa jaar mhm. léegi moo tax ñu bëgg a jafandu ci dossier maam Mbaye Niang bi te booboot duñ ci mën a jafandu parce que benn sénégalais gis nga boobu fa laay tëjee wax ci gis nga ñun li ñu la bëgg xamal mooy sénégalais yi boo leen dégloo dañoo pare xam nga Macky Sall dañuy pare na moom ak ay nitam gis naa sax ministre de la jeunesse sam démb dem ca rond point cité kër góor gi di fa def as as ndajaloo soo xam ne matuñu matuñu nit euh, matuñu euh, téeméeri nit naan non bu Ousmane Sonko bu ñu ko woowee ñun ñooy jël ñëw jël si ko gis nga bis bu ñu woowee Ousmane Sonko waxuma la moom waaye moom ñim àndal ñëpp gouvernement bi yëpp bu ñu leen woon dajale leen seeni i ngeen dajale nit yu dem jëli Ousmane Sonko mhm. waxuma la duñ ko jëlee waaye dañuy dem làqatu ci ay hôtel kon ñoom liy dëgg. mooy ñoo la gën a xam ni kenn mënta tee Ousmane Sonko mu nekk candidat en 2024 pourquoi parce que ñaari dossiers yi ñu bëgg a jafandu amu ci benn bu dëgër ci lenn xamaluñ jafandu ci sagar lañ jafandu buñ jàppee dana wadd ànd ak ñoom liy dëgg daal mooy nañ bàyyi seen yëfu caaxaan yi te ñemee sëgg bëre sëgg bëre nag mooy jàkkaarloo ak waa ji mooy candidat bi nu ragal mais amul leneen waaw daam tamit. dëgg fa yàlla daam daam daam lii mooy émission benn question lii kenn mosu koo gis yow daam non Omar benn yoon la laaj ah. ngay def ñeneen ñi def ko daal da ko bàyyi rek muy conférence daam moomuñu quand même. ayca ayca defe naa saa am na. non defal naa même daam euh, léegi yow daam man c'est que gars yi nee nañ euh, parce que question gars yi lay kii quoi yow daam yow Pastef nga nekk léegi wala parce que yow da nga naan nekkoo Pastef mais ku la dégg ngay wax ni ngay défendre Pastef gaaw Pastef bi sax duñ ko défendre yow fu nga nekk waa ilaa foo féete. waaw xam nga. loolu xam nga man waaw. ragal péete. Mhm. day xañ du ma tee du ma tee wax dëgg xam nga sénégalais li ñuy bëgg mooy del équilibré. waaw mais booy équilibré da nga équilibré ci dëgg. Mhm. man bis bu ñu bàyyi woon euh, jaay doole bi ñuy jaay doole Ousmane Sonko. Mhm. wala ku mu mën a doon barki dem bi ñu fi jaayee doole Mimi Touré ma ñëw taxaw ne d'accorduma Mimi Touré amuñu droit foqat ci postam parce que moom euh, faluñu ko ci benn ci ci ci ci ci listu APR. bennoo bokk yaakaar lañ ko fale te te loi li mu wax mooy day démissionné pour ñu mën ko remplacer te démissionné wul njortu amul amul ni muy taxawee danoo yaakaar ni loolu amul parce que Mimi Touré ni muy doxalee ku ku ku ko gis xam ni. bu gaay bu opposition bi toogee ne. man pouvoir toogee ne mu toogee ne. mais loolu amul loolu daam daam ngor. moo nanguwul Mimi di téye toujours poste bi député am jëmale ci Benno Bokk Yaakaar nañ waxante li fi ne même bu nekkul même bu démissionné wul mais mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi def lépp loo posé di def képp koo posé li muy def moom ngay def noonu la taxawee waaw quand même yéen a ngi fàttaliku le jeune Wakli Wakli Wakli yéen a ngi koy fàttaliku yaa ngi koy farlu pourtant lii Mimi Touré def moom pire euh, li mu def li mu def moom moo gën a garaaw foofu li Mimi Touré doon def te Abdoulaye Wade da ko doon muur gis nga gis nga nguur parce que boobu xam nga waat lu mu doon bañ que mu gàkkal démocratie Sénégal parce que député yàppaa a pas de mandat impératif ba dama la y' a pas de mandat impératif député bu ñu ko xasee fal moo moom boppam ay position la yoo xam da koy am ca biir assemblée nationale ba mais il est libre cest à mun nga bokk ci benn mouvance boo doo bokk ñoom gis-gis. parce que député bi ci sa xalaati bopp ngay deme manaam li nit ñi gëm Sénégal que ku nekk député ci benn groupe parlementaire lépp lu waa groupe ba wax rek da cee war a ànd mais loolu démocratie démocratie mooy député bu nekk dafa am sañ-sañam. boo xam ci askan wi la ko jëlee lépp lu luñ teg ci table ji mu xool aqulaay taalaam daan ne man lii laa gëm lii laay voté mais loolu la Mimi Touré def. sànq yaa ngi woon fu solo. <laughs> nee tey jii bu nu bàyyi néewal doole ñenn ci opposants yi. man loolu tey nga dem léegi dama la dégg nga wax ko affaire coalition le peuple xaw ma la nag la man loolu maa ngi koy soog a dégg xam naa ne amu leen buzz. loolu non non non xam nga ñun. Euh, coalition citoyenne le peuple. Hmm. ñun dañoo taxaw ci dëgg. maanaam ñun nous sommes une coalition comme son leen l'indique une coalition citoyenne mooy lan. mooy ñun faruñu fenn mais dañuy aar ñetti mbir mooy aar sunu démocratie. Mm. aar sunu état de droit aar les libertés. maanaam yii dafa am solo moom mooy jëmmal réew. Mm. réew mu amatul lool du réew. ñun nag ci loolu la ñuy taxaw looloo tax bu ñu dee jaay doole nit ñu gis mu leer naañ parce que fii jaay doole bi fi ëpp mooy bi ñuy jaay doole Ousmane Sonko du leneen képp koo xam ni doo naa fekk te nangu nga dëgg da nga gis ne li ñuy teg Ousmane Sonko dafa ëpp parce que moom bëgg na jiite réew mi. am discours bu wuuteeg système bi fi ne parce que système bi fi nekk depuis 1960 France di leen jàppale ku ne na ci nag kilifa gu ne na ci système bi euh, banqaas bu ne na ci système bi fu ne ñu am fa ay représentant ñu yore seen doole képp ku yaakaar ne nar nga jël réew mi te doo ànd ak ñoom ci ni ñuy doxale maanaam sénégale yi gën a ndóol ñoom ñuy gën a nekk ci guttandaat mais képp ku ni bokkoo ci loolu te ñu yaakaar ne yow mën nga leen fay jëlee dañ lay def seenum noonu. Ousmane Sonko loolu tax ñu def ko noonu parce que yeneen leaders yi xam nga tax kenn def leen noonu parce que la ñuy wax wuutewul ak li waa système bi wax ñooñu ba ñu fal woon yàqaluñ dara waa système bi Ousmane Sonko nag dañu système bi nga xam ne ay tappalee ko lal ay wuruja ko lal ay sàcc sunu xaalis ak di bàyyi France muy tibb suñu alal di yóbbu réew mi. mais pourtant loolu lañ wax ne moom la fi système boobu muy wax moom laa doon wax waa système bi ñoo ko entouré. waaw loolu du ci dara ah, xam nga lu bëri lu ñu xamul. xam nga non loolu voilà système bi. waaw mais ñooñu ils ont le système dans le sang bàyyi waaw daam bàyyi li ngay wax waaye. Euh, élection du am maanaam jëmm yi wax ji laa bëgg nga leeralal ma su ko mënee dégg. waaw Macky moo la gën a xam ne coow li bari na lool waaye mënu fee defee élection yoo xam ne dañuy dem ci urne yi di voté te Ousmane Sonko bokkul te te yàlla may ko bakkanam bi muy dund te tal ko lu leer laa lay wax moo la gën a xam moo Macky Sall. yii yëpp muy def ay surenchère la. maanaam na yëkkati affaire bi ba mu dëgër pour que bu ñu demee ba pexe amul mu ne waa léegi kon bàyyi leen ma ma bokk <laughs> mais mun ta bokk. loolu may wax ji mais li leer daal li leer mooy système bi. système boobu. bëgg naa ko leeral parce que ñu bëri dañ ciy juum. li tax système bi ay doxalin la loolu la Ousmane Sonko wax ne da koy dindi maintenant sooy bëggee dindi loolu nga ne yow ku jóge ci système bi waroo ko téye ki koy wax daa xamul li xew au contraire man tey jii su may xëccoo dara ña nga am ña nga ca biir système ba man maa dimbali pour ma jëlee fa système bi dama leen di woo ñu ànd ak man parce que ñu woon may pexe yu ma fu mën a jëlee système bi waaye nag jëlee leen fi taxul nga ànd ak ñoom ci pour def lañ doon def tey na ànd ak des éléments du système pour détruire le système maintenant su ko détruire pare nag teg dëgg bu ko defee ñoo ñu mu àndal mu wax leen ni man sama non non loolu leer naññ la maanaam au contraire Ousmane Sonko su fekkente ne dani képp ku ci bokk mos a bokk ci système bi mhm. duma ànd ak yow xeex système bi ça veut dire kon xamul lan mooy stratégie dans la stratégie dama la jox rek benn exemple bu terre à tey jii man su ma dee soo soo gisee ñaari mbër yu bëri par exemple Eumeu seen di bëri ak Balla Gaye ba ko doo 3 léegi bu ñu bu gisee ne am na ay ay ay mbër yu dend ak Balla Gaye yu naroo ñëw ànd ak moom pour wan ko pexe yu mu mën a jaar. pour jëlee fi Balla Gaye pour daaneel ko dóor ko 3-0 yi. mais day dem naxanteeg euh, ñoom ànd ak ñoom. donc Ousmane Sonko encore une fois ñuy wax loolu nañ arrêté Ousmane Sonko ànd ak des éléments qui dans le système. pour mën a xam yan pexe la mën a jaar pour gën a dooleel boppam pour jëlee fi système bi léegi nag kañ lañ koy xaar mooy bu defee loolu ba jëlee fi système bi est-ce que ñooñu mu àndaloon ten bokkoon ci système bi daan ko pousse pour mu continuer di def la système bi doon def te loolu xolal fii laa la koy waxee man Dame Mbodj ànduma ak kenn bis bu amee Ousmane Sonko bis bu ñu ñun sénégalais yi topp ci moom topp ñoom parce que dafa rafet bokku moom parce leneen ak la a jantal Ousmane Sonko ñoo gën a féete xale xam nga ñu ànd ak moom li mu leen dig pour soppi woon soppiwul réew mi xale yooyu ñooy taxaw duñ ko may dara kon nag réew mi dañoo bëgg mu ñu joyanti ko te Ousmane Sonko la ci Sénégalais yi yaakaar ayca jërëjëf euh, Dame Mbodj ñu koy jaajëfal bu baax euh, bokk coalition le peuple non mooy tey na tey na tey na gan la dañ ko doon ganale quoi euh, surtout ak bi mais Dame kontaan nañu bu baax di la ñaanal suñu borom yokk la wér yokk la kattan yokk la sutura di masaw waa alaaji Paate booy bi mu fi doon annoncé lundi passé oh bi mujj a décédé booy bi takk der yi laajoon waaw oh. ah, dafa mujj a décédé oh. waaw na na ci yoon def liggéeyam rek foofu laa ci yem teg ci aussi papa ji dafa demoon gendarmerie ñu bëgg ko téye en même munoo rey doomu jaamu ba pare bëgg a téye bàyyam tëj ci kaso bi loolu mënta ne aussi te loolu nag lépp lu mu laaj ñun dinañ ci taxaw te daam maa ngi la ciy woo. man loolu rek laay xaar. dégg ko. man kay dëgg rek. ak ku ñuy jaay doole ma ñëw taxaw sa man képp daal sa temps jeex na. man eh, ku ñuy jaay doole dama ñëw jeex na. yàlla bu ñu la jaay doole bëti mais tey ji bu ma xëyoon dégg ñu ngi lay jaay doole même sa patron fii wal fa diri bëgg laa jaay doole ma ñëw taxaw man kay ku ñuy jaay doole dama ñëw taxaw sa loolu la rek d'accord merci beaucoup en tout cas merci merci ci disponibilité bi Dame Mbodj euh, nekk porte-parole coalition citoyenne le peuple